الرجال في سل لنا به رآب به الجميل من ذكره واللطف أنقضيها بالقلم أرسله الله إلى كل الورى مرتلا ذكرا أليم ينزيلا هدى لزيد تعمدني أكرم بذلك الكتاب والجواب من ربنا ذي القدام هو الشفاء من كل داء لمن mbokki jullit yi mbokki taalibe yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziare ci ñuy seetaan ci sunu site internet yi ñuy topp ginnaaw bu ñu sante yàlla bu baax jullit yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sant si Ahmadul Xadim gërëm bu baax sëriñ Bousso bi tey jii di alxamis ñaar fukkan ak ñaar ci weeru décembre deux mille vingt deux ñu ngi fii tey ci Mbàkke Bawal ci pencum Bousso bi ci jumaa yi Masaalikul Jinaan tey di bis bu rëy ci lislaam di bis boo xam ne nii ci lañuy fàttaliku sunu jàmbaar yu tedd yooye di sëriñ Bousso bi ak mbokkam ma sëriñ Saa so ak mboolem seenu njaboot di leen fàttaliku ci ay ñaan di leen fàttaliku ci delloo waxtaan ak xam-xam ak soññee ko nga xam ne ne ñoom seen yitte ci loolu rek la woon tey jii nag moo tax njaboot gi yëpp naka jëpp niñ ko da baaxoo defee at mu jot ci njiit ndigalul Cheikh Mamadou Mountakha ak ci njiital Serigne Bousso bi Bousso mi nga xam ne mooy xalifa Serigne Bousso bi ak Serigne Baara Bousso mi nga xam ne mooy xalifa Serigne Sa ak mboolem njabootu Bousso bi yëpp ñu daan def bëccëgu ñaan boo xam ne dañ koy jagleel suñu maam yooyu bi ñu xëyee jàng nañ alxuraan yu bëree bëri ak ay ay laltaay laltaay nañ ko ci alxuraan ak ay xasida ak ay bi incha allah rabi noonu la ñu dundale bëccëg gi bu ngoonee des na fi amal waxtaanu diine bu mag boo xam ne nii Serigne Fadilou Bousso Thierno moo koy def ak ñi àndal ñëpp buñ noppee nag daal di niñ ko baaxoo defee ànd na ñun ñëpp dem siyaare ji barabu Serigne Bousso bi daal di tàggalikoo ñaanalante sëñ bi yeewee ñaan ba déwén kon tey jii ñu ngi fii toog ci kanamu Serigne Alhaji Fadilou Bousso mi nga xam ne mooy jiite daayira mu asatu saxaafu li sutin Bousso bi nga xam ne mboolem askanu Bousso bi yëpp daayira bi nga xam ne moo leen lëkkale moom moo ko jiite moom lañuy jox ay kàddu su noppee ñu jox sëriñ bu so ngir ñu xam ne bis bi daal bis la bu mag a mag bis bu màgg la boo xam ne ni jàmbaar ji ñu koy defal ku yàlla gërëm la ku yonente bi gërëm la ci sëriñ Touba gërëm la ndax day na sëkk rek sëriñ Touba defoon ko kilifaam defoon ko léppam defoon ko roy waayam defoon ko delluwaayam moom it mu yiiroon sëriñ bi jàppale ko taxaw ko ci liggéey bi ba yu bëree bëree bëri mu def ko ngir liggéeyu sëriñ bi taxaw kon jàmbaar yooyu la ñu fàttaliku tey koo xam ne nii bi sëriñ sépp dajalee ci xarab imam Maba Jaxu Ba moom lañ jiitaloon def ko muy imam def ko muy attawukaay def ko muy lépp muy jàmbaar ci lislaam muy jàmbaar yi moom la ñu fàttaliku tey kon sëriñ Alaaji Fàdil Buso moom la ñu jox kàddu gi bismillah mbokki jullit yi leen di nuyu ñaan yàlla ba leen lu yéggal parce que sëriñ ni ko sëriñ Murtada waxee léegi rek daje nañ fii ci Mbusoobe ci pàkk bu tedd bii nga xam ne fi la Serigne Touba daan nekk ànd ak sëñ Mbacke Bousso di taalif Masalikul Jinaan ci barab boobu tey la ñu toog di fi màggal fàttaliku maam yu tedd yooyu la Serigne Bousso bi ak rakkam ñu sëñ Saa Bousso ak mboolem mbokk yi ni ñu ko waxee léegi rek bis boobu nag mu nekk bis bu tedd boo xam ne bii ñu ko def si njiitul bàyyi Serigne Bousso bi nga xam ne moo fi sëñ Bousso bi tey jii ci kaw suuf te moo fi sëñ mu Faty itam mu ànd ak mboolem bokk yépp nag ay doomam ay jarbaatam ay rakkam ay amuy ko jaamam yëpp am nañu fi tey jii ngir euh, màggal bis boobu la bis muy bis boo xam ne bii nekk nag suñu waxee bis la bu màgg bu tedd boo xam ne bii bis la boo xam ne kenn mucc ci ñëpp ñëpp ci bokk ndax képp koo xam ne kii laal nga sëñ Touba dara rek bis bi am nga ci wàll ndax sëñ sëñ Bousso bi mooy sëriñ Touba ndax mooy soxna jaara kon nag képp koo xam ne kii rek jote nga ak suñ bi dara ak noo ci jote rek kon am nga la ci bis bi bis bi kon sag màggal la sa bis la boo xam ne yaa ngi koy taxaw moo tax nag mboolem kilifa yëpp ànd nañ ci taxaw nañ ci kenn ku nekk yebal na sa ndaw ñenn ñi teewal tey fi di bis boobule ñu sant ñëpp te jiitu si ñooñu rek mooy Cheikh Amadou Mountakha mi nga xam ne mooy fi Serigne Touba tey ci kaw suuf ñaan ko yàlla yàggal ko fi lool te wéral ko ak moom kon bis bi la boo xam ne bii daal bés la bu màgg la bés la bu tedd la boo xam ne bii noonu la yàlla ñun yàlla tawfeexal nag nu koy màggal waaye ñëpp a ko war a màggal ndax ñëpp a ko bokk ndax sëñ Bousso bi euh, ko bokk soxna jaara rek bokk nga ci moom kon nag kon loolu ñëpp la war kon ay kàddu yi duñ ci sori dañ ko jébbal sëriñ a jot lépp incha allah dak jotali aousu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi rawatina mbokki taalibe yi ba ci mbokki sénégalais yi fu waay mën a nekk ci àddina ñu ngi leen di nuyu si di leen siyaare bu baax jiital ci nuyoo bi siyaare bi Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké di ko ñaanal suñu boroom mu eggale ay naalam ba naal yeneen te yàlla nañu yàlla defal tawfeex ñu ànd kook moom noonu lañ koy ñaanale suñu waajur bàyyi sëriñ Bousso Bangaaj mi nga xam ne mooy xalifa sëriñ Bousso bi mën nañoo wax nag mooy xalifa bu am Bousso bi yëpp ndax yàlla dogal na fi mu nekk nii mooy ki ci féete mag waaye ñi ngi siyaar bu baax sëriñ Baara Bousso mi nga xam ne moo fi nekkal sëriñ Saa Bousso ak mboolem njaboot ak Bousso bi ak ku ci waay ku ci a njabootoo ñu ngi bu baax sëriñ Fallou Bousso ñanga mi nga xam ne mooy njiitul Euh, kuréel gi nga xam ne moo lëkkale njabootu su ñaari maam yooyee di sëriñ Bousso bi ak sëriñ Saa Bousso ak mbooleem ñi nga xam ne ñoo ko jàppale ci liggéey bi yëpp ca suñu rakk ji nekk ci wetam di sëriñ Mouhamadou Mourtala moom sëriñ Thierno ak mbooleem ñi nga xam ne ñooy jàpp ci liggéey bi muy ñu góor ñi ak ñu jigéen ñi. tey jii nag ni ko ñi ma jiitu waxee ñi ngi fii ci Mbàkke Bawal ci quartier Mbuso bi bokkoon ci euh, moomeelu sëriñ Touba mu jëloon ko jox ko. nijaayam jooje di sëriñ Mbusoobe ñaari maam yi nga xam ne ñoom lañuy fàttaliku nag bis la boo xam ne bu jara bu jara teew la ndax ñoom suñ boroom may na leen may goo xam ne néew na moom may ko may gu toll noonu ndax ku mel ne sëriñ Mbusoobe doon ki nga xam ne moo njëkk a jaayante ngir sëriñ tubaa mën a accomplir mission bi nga xam ne moom la ko suñ boroom mm, sant ndax yonent bi sallallahu alayhi bi mu feeñoo sëriñ Touba ci ci ci ci ci Touba gàllankoor yi mu ko waxoon ne ko fa nga bëgg doo fa mën a egg lu dul sëñ Mousso bi mii dem dëkkoole ak boroomam ndax juboo naag yàlla juboo goo xam ne te yërëm na la te bëgg na la te yër na la te saa yu gisee nga bëgg a tàmbali ay nattu dana dana dana ñaan suñ borom ca bu ko ñaanee suñ borom natt ba suñ borom dana ko tegg ca kon la nga jaayante woon day naax saay waaye loolu ba ko sëriñ Bousso ba yëgee ci baatin mu xam ne ak dundam li muy baax baax li muy am am njariñ dund ak sëñ Tuubaa moo ko ëpp njariñ moo ko gën a baax loola tax na mu daal di tànn dëkkaale jeeg boroomam bi nga xamee ne sëriñ Tuubaa suñ borom ubbil na ko bunt boobu nag ci la am sañ-sañu ak man-man mën a jaayante ba dugg ci bunt boo xam ne ba mu ca génnee andil nañu loo xam ñun ñëpp ñu ngi ciy barkeelu kon nag maam jooju ku ko suñ borom tawfeexale boo ko desee gannaaw war ngaa bokk ca yonent bi sallallahu alayhi waxoon ne ab jullit bu fi jógee lépp lu mos a def ci lu baax ak loolu lu mu di doon suñ borom dana téye mm, loole dara dootu ko fa fekk lu dul ñett ba ca njëkk mooy bu fekkee ne amoon na xam-xam boo xam ne tasaare woon na ko ci kaw suuf julli ñi di ko jariñoo képp ko jariñu ci xam-xam boobee yàlla naa dogal muy dolleeku sa mm, peesekaayu yiw ba ca topp mooy képp koo xam ne def nga luy jariñ doomu aadama yi waxuma la julli ñi waaye doomu aadama rek moo xam da ngaa tabax euh, ab école nit ñi ci jàng wala daara wala jàkk wala nga nga gasub teen ak leneen lu mën doon ca xam nit ñaa ngi ci jariñoo rek suñ borom nee na dana la fekk xéewal googee di ko dolli ku ci sa peesu jëfikaay yiw waaye nga boole fi ak njab bàyyi fi njaboot goo xam ne euh, wala du saalix la koo xam ne saa yu ne mi ngi xelam mi ngi nekk ci yow di la ñaanal ñooñu nag wala du yoon yooyu nag ñooy ñi nga xam ne ñoo taxaw bëgg a fàttaliku seen ñaari maam yooyu ci ñaan la ci njëkk mooy jàng alxuraan ak jàng xasaayit ak tudd yàlla ak jokku mbokk ak waxtaane gaa yu baaxee loolu yi moo sabab bis bi te yaakaar naa ne bis boobu képp koo xam ne nekk nga ci kaw suuf bu sab man man manoon war ngaa ñëw teew fii ànd ceeg ñun ci ñaan googi kon nag bis bii nga xam ne bàyyi Baye Serigne Bousso mi nga xam ne mooy kilifa ak Mbousso bi yëpp jógee ba ngaat fii taxawu si ko ak njabootu Mbousso bi gépp kon njaboot gi nga xam ne ñoom la sëñ Bousso be jaboote dafa jaxasoo ak njaboot sëñ Touba ñoom ñooy njaboot ak sëñ Touba sëñ njaboot ak sëñ Touba te sëriñ bi sëriñ saa Bousso it doonoon rakkam joo xam ne ju ko déggaloon la nga xam ne suñ borom moo dogal mu des fee ca naawel waaye pas bi nga xam ne moom la sëñ Bousso bi amoon tey bu ko fekkoon pas-pas boobu sëñ Bousso bi amoon ci jàppale sëñ Touba ci mission boobu noon la koy jàppalee ndax bi nga xamee ne ñëw nekk nañ naaweel ca am na téere yu bari yoo xam ne xam-xam munuñ koo ñàkk a xam soxna astawaalo dafa waxoon sëriñ Mbuso bi ne ko na nga dem gànnaar dem jàngi téere yi nga xam ne moom nga war a jàng su ko defee sa rakk ji di sëñ saa Buso xaar ci daara ji di jàngale alxuraan di jàngale xam-xam te noonu lu ko defee woon kon moom sëriñ saa Buso jàpp na ci liggéey bi jàpp bu wér boo xam ne xam-xam ba nekkoon sëriñ Buso tey bu ba muy wan way juram woowa soxna astawaalo gannaaw di dem murtan di ko jàng di jàngi bu fi bàyyiwutoon rakkam ju mel ne saabu saabuso xelam du dal ca ba nam bëgg a jànge suñu waajur it sëriñ ibrahima buso mbirka nett ne nee na bi nga xamee ne sëriñ buso be mi ngi war a jëli sëriñ saabuso ca way juram wa ca soxna xari jaw soxna astawaalo moo ne ko demal jëli ko soo ñëwee mun xaar la ci daara ji ba mu demee lii li tax ñu koy nettali rek mooy dañuy bëgg ñu roy ci ñoom ci jàppalante ak yiirante ak suturalante soxna soxna sëñ saabuso biñ demee ba soxna xari jaw waajal leen ci ay yóbbal biñ génnee dafa wax sëñ busoo bi jàddal ci kër gi ñu jàdd mu lal ñaari mbalaan bu jëlee benn teg ci bosam jël benn teg ci euh, euh, bosu sëñ sëñ sëñ busoo bi ba yóbbal ba jeex ñoom ñaar ñëpp ñu bokk ci yam mu ne damaa bañ buñ demee ma yëkkati di la may ñu man maa maa la ko may waaye damaa bëgg nga xam ne suñ wayjur lañ fekk si woon lam ñu jox ñun ñëpp ñoo ci ñoo ci ñoo ci bokk yam gis nga kon suturaalante goog yi ak yërmante ak toppante goog yi waa Mbusoo bi gépp loolu mooy mooy mooy suñu suñ suñ warugar kon nag ñi ngi ñaan suñ borom képp koo xam ne teew nga ci bis bi yàlla na yàlla defal aaju ju faju ci saahir ak ci baatin nam ko faje woon suñ ñaari maam yooyee kon Baye Serigne Bousso ak suñ baara ak mbooleem njabootu Mbusoo ba gépp ñi ngi dégle ñi gën a góorgóorlu bu baax ci roy suñ ñaari maam yooyee ak suñ maam yi nga xam ne ñoom lañu àndaloon ñuy ay wayjur yu jigéen yoo xam ne ànd na ñoom ànd gu rafet waaye képp koo xam ne bokk nga ci askan wi ci jigéen ñu ngi lay royloo ñu ngi lay royloo ci soxna jaare bu Buso waaye ñu ngi lay royloo ci soxna maam Asta Waalo suñ ko defee la sëñ Touba bëggoon ci njaboot gi lépp dana rogalaat ci njabootu su ñaari maam yooyu te it toll nañ jamono boo xam ne it sëriñ Mouhamadou Mountakha mi nga xam ne moom lañ jamoonteel de ku fonk xam-xam la ku fonk diini la ku fonk ak njub la ku fonk ak taalibe la kon képp koo xam ne jabootoo nga ci ñaari waajur yooyu Baye Serigne nee na mi ngi lay soññ bu baax ñu góor góorlu ci jàng gën a góorlu ci yaru lislaam gën a góorgóorlu ci liggéey gën a góorgóorlu ci jub kon lii mooy kàddu yi nga xam ne incha allah ñu ngi leen koy fas yéene tàmbalil bis bi kon ñu ngi ñaan suñu borom defal ñu jàmm ak xeewal kilifa yi nga xam ne ñoo fi nekk yal na leen fi yàlla bàyyi ñu yàgg ànd ak ñoom ci bis bi barke Seexul Xadim barke Serigne Bousso beek Serigne Sa barke Soxna Sawala Soxna Jaara wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. jërëjëf sëriñ Abdul Xaadir so kàddu yi rafet na lool te it ni ko waxee rek ñun ñi nga xam ne ñoo féete ak ndaw buñ toppee ci suñu jàngalee suñu kilifa yooyu danañ am ak jariñ boo xam ne nii danañ ko jariñu fii ba àdduna ba ren balaa balaa déwén ba déwén. ñu ngi lay sant bu baax ci kàddu yi di sant sëriñ Fallu niñ ko waxee rek bi ñuy nekk ci biir kàddu yi sëriñ Fadilu Bousso moom sëriñ Fadilu Mbàkke moom sëriñ Abdou Latif di jarbaatu ci sëriñ Muntaxa moom la seriñ bi yabal ngir mu ñëw teewee ku ci ànd ak bis bi ngir xam na ne bis bi ñu defal seriñ bu soobee sëriñ Tuubaa lañ koy defal. doy na sëkk rek ci sëriñ bu soobee ñu jàngal leen ay abyaat yu am solo yoo xam ni moom la sëriñ Tuubaa way ci moom bëriwul nag lu sëriñ tubaa di way ci doomu aadama waaye nag def na ko ci nijaayam ji di sëriñ bu soobee du tënk ko it aw turam muy abyaat yoo xam ne ni mi ni tàmbali na bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam muhammadul buso Mouhamadou buso moom la tudd tënkee bayit wi Mouhamadou Bousso nag moo ci gën koo xam ci sëriñ Bousso bi mu ne ilaa xudratil xaalihil xam xalaamaatu mi ngi koy way ci borom xam-xam bu tedd bu maxroof bu gën a siiw ñu koy wax bi sëriñ Bousso bi sëriñ Tuubaa wax ne baatu Mouhamadou Bousso la jël mu jël miim gi mu ne min murtaji xufraanin saa xirsi mawlaahu ilaa xirsamin xinziina min qalli sarwaahu xamiimun samimun aalimun daaru sayitoo karimun karimun lil asli jammat masaayaahu majidun xamidun lam yasal yanbaxil xula la dun sab xata xaasa maa kaana yaxwaahu maraami ladayhi lyawma sayfun muhanzasun wa xidmatun nafisun max libaasin fa xadnaahu damuuri lxidaa inda alwaqti summa makrimu li ahli tuqaa haza madahi sammaahu badihun sujaaya bariun faasihu tarbiyatun wa ma mislahu timsun xilmlaahu dahaahu salaamun salimun laa bikaali saxdin taxmuhu yusxayhu li tabdili wa nuuru saxwaahu mooy ay badi bayaat ay abyaat yu xam ne Sëñ Tuubaa mi ngi ci turu Mouhamadou Bousso di seere ci moom ak tedd ngam ak màggam wane na kem mis mis maanaam ku mel ne moom amatu ci kaw suuf ak tedd ngam ak njàmbaaram ci diine ak jàngaaram ci lislaam kon loolu foofu la Serigne Touba tegoon Serigne Bousso bi fii ñu nekk di ko defal nag muy fii ñu nekk ak fii ñu ko denc tey kër la goo xam ni suufu Serigne Touba la bi mu fi jógee di sanc Darou Salaam ci la jëlelu sëriñ yoon yooni maam Cheikh Fall mu dem jëlee sëriñ Mbusoobe naawel ca maam Cheikh mu dikkee mu ñëw sanc Daaru Salaam bàyyee ko suuf si moo tax ñu koy wax Mbusoobe kon loolu mooy lay taay li incha allah rabbi danañ continuer ci li nga xam ne mooy ci programme bi incha allah ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah